ñun dañoo xam suñu bopp xam suñu bopp nag moo tax ne on soutient on continue à soutenir la coalition c'est bien beau d'avoir des discours où la majorité mécanique ils vont faire ceci ils vont faire cela mais ce sont des gens yi nga xam ne ni la plupart dans l'opposition ils ont eu à exercer le pouvoir ils ont eu à aller en coalition avec Pastef on a vu ce qu'ils ont fait nga discours yu rafet yi ah moo war a jeex ci biir dëkk bi on est là pour travailler on a besoin de la majorité absolue te incha allah woo on va travailler pour qu'on la majorité absolue. waaw a des listes yi nga xam ne nii ce sont des listes qui ont été constituées pour protéger pour parce que certaines personnes doivent veulent aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir une protection dañu wax dëgg te yàlla tax. yàlla dëgg la bëgg. des beaucoup de choses qui se passent dans ce pays là y des politiciens yi nga xam ne instant bi nii bañ Ousmane Sonko ah moo tax ne du ñu dañoo bañ Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko au fond dafa claquer deal bi claquer deal bi xam nga mooy lan. Hmm. y avait une nouvelle génération d'hommes politiques qui avait commencé à émerger en dehors de Sonko <clears throat> ñoom pour ñoom dans leur tête la présidence les postes de premier ministre ak l'Assemblée nationale seen biir lañ ko naroo pa lañ ko naroon seddoo Sonko est venu non seulement il a tué il est venu avec une nouvelle une nouvelle forme de politique il a amené l'antisystème gars yi nga xam ne tous du système il les a mis sur le banc. et à côté de ça il a tiré de nouvelles de nouvelles têtes politiques. waaw. Djiby laisse le terme. de nouvelles personnes yoo xam ne elles ont émergé gis nga ñi fi nekk di yuuxu gi ñoom ñëpp ils sont partie du système Sonko instant dafa éclater seen dit dafa yàq seen seen marché parce que ñoom Sénégal marché lañ ko jàppee woon. Hmm. Sénégal un marché pour eux on voit il suffit juste de voir dëkk bi nu mu nu ñuy pare di yor ay 7 F50 F150 seen biir gaare yi nga xam ne dañ koo dañ koo nga xam ne dañ koo parce qu'ils ont pris l'argent wala leen ak être ministre day tax nga nekk milliardaire euh, dans l'entrepreneuriat ça tu peux faire 20 ans tu peux pas t'acheter une voiture ndax c'est tellement compliqué stress que ah, c'est c'est très compliqué il suffit nga dem ba mun a am benn gi nga am gros marché pour pouvoir avoir de l'argent te loolu sax les banques ne t'accompagnent pas parce que c'est pas des banques d'investissement sont des banques occidentales qui ont été mises ici pour piéger l'entrepreneuriat nga xam ils n'ont pas accès aux fonds et aux ressources mm. loolu yëpp ñu war ko teggi am ay nit yu bëgg nekk fii dañuy jaay ni que non il faut il n'y aura pas d'inter je sais pas. cohabitation de de cohabitation. on a essayé de cohabiter avec l'ancien gouvernement ici ñu ne duñu recevoir duñu duñu duñu recevoir. Ousmane Sonko daf leen daf leen daf leen kii. Ousmane Sonko daf leen ñàkk daf leen ñàkk kersa. yow on te demande de la loi d'orientation budgétaire pour que ñu gars yi mën a am budget nga ne non du ma leen recevoir ndax Sonko daf leen ñàkk kersa ça ça c'est quel type de député. gis nga dëkk bi soit on fait confiance au projet. et aux personnes qui sont dans le projet soit Sénégal yi choisir leneen dëkk bi su doxee baax na su doxulee ah, baaxul ah si ah si déedéet si okay. parce que y a des gens qui ont cru au projet qui se sont battus pour le <laughs> projet comme Ibrahima comme man comme y a beaucoup de gens qui se sont battus pour le projet am na ñu ils étaient là dans l'opposition ànd ak coalition bi parce qu'ils avaient des intérêts à défendre de soit suñu parti dañuy dem rey di y a des hommes politiques qui sont ici loolu mënuñu ko weddi je ne sais même pas la ay tour y a des gens yi nga xam ne ils étaient pour jouer le rôle d'espion gëmuñu ko maintenant nag puisque léegi nag mi muy def hmm. fii li moo wane nguur yàlla moo koy joxee carte dafa leer nañ tout est clair on sait qui est qui le hmm. choix revient aux Sénégalais il nous donne la majorité absolue ñu mën a doxal le projet mettre à teg dëkk bi ci bi soit on donne la on on met une assemblée bi nga xam ne les beaux parleurs les gars yi nga xam ne les délinquants financiers euh, et fiscaux pour rentrer là-bas et avoir leur protection te bu boobaa ce sera au c'est le Sénégal qui finira par s'en mordre les doigts parce que ce sont des gens yi nga xam ne au fond. soxlawuñu Sénégal am nañu seen i teranga ñoo ngi bi ñoo ngi béggee seen i béggee ils ont leur jet privé ils vont en première si laa doon naa ma jot privé de. ah dama am jot si privé. oui ma. non non Sylla n'a rien à voir. non j'ai pas dit ça dafa am. non non non oui boole Ablaye Sylla. oui oui nañ nañ ko bàyyi waaw la Ablaye Sylla moom munoo ko tâché. jibi waaw la la laisse le terminer. non munoo partagé mais tâché wu. il a soutenu même Diomaye. ah waaw loolu après kenn tâché wu ko. moi je disais que mais fii y a y a des gens yi nga xam ne ils ont des jets privés. suñu suñu suñu suñu dem voyage ils vont en première classe. ak lu mu munti cher cher cher ils vont le billet de la première classe. Mhm. am na nga xam ne ce sont des délinquants financiers et fiscaux. waaw ñoom ñu fi doon dina ay billets trop 23 millions. waaw mais dëkk bi fii am na fi benn chef d'entreprise chef de presse fi taxu ne man depuis 2009 laa gëj a fay laa gëj a fay euh, impôt. kooku da nga ko jël nga dugg ko assemblée nationale. voilà. Euh, Samba ci yooyu législative aussi quand on voit takku wàllu ñu perdre cinq sièges aussi. loolu tamit beneen problème la surtout aussi ci jamono bi nga nekk nga xam ne élection yi tamit dafa bëri enjeu. waa xam nga élection yi euh, c'est très important ah, man toujours je me dis chaque fois élection bu amee ci ngay natt suñu sérieux politiciens qui sont sérieux ak ñi sérieux wul gis nga ñi sérieux ñu sérieux ñu ngi liggéey ñi sérieux wul nag ñoo nekk di wax di casse moindre détail ñu indi fii ay ay alibi tey ce qu'il faut retenir mooy mm-hmm. dafa am ñu bëgg dem élection am ñoo xam ne dem élection arrangé wu leen c'est ça le débat. ok dafa am ñoo xam ne tey il vont mettre tous les obstacles pour que soit ñu reporter élection yi wala élection bañ a am. Mhm. parce que dañu nekkul ci logique yi dem élection. te loolu sa remet en cause toujours dama koy wax mooy sérieux yi am ci dans l'organisation des partis politiques nit ñi parti dafa amatul wala booy compter tey parti boo ne ñaar doone ñett xam nga li des yëpp lan la. c'est-à-dire que c'est des agences événementielles ay agences événementielles lañ dañuy toog bañ ne à ah, un mois élection mu ngi waaj a ñëw ñu dem louer benn permanence wut benn secrétaire commencé di dugg ci dëkk bi di tànqal nit ñi. Mm-hmm. y a des partis politiques qui sont très sérieux organisés nga xam ne am nañu école du parti am ay formation et et c'est ça le rôle d'un parti politique. Ouais. un parti politique il doit fonctionner euh, chaque fois. du rek di xaar élection pour fonctionner. Mhm. mais tey gis naa na nga xool ci kanam tuuti rek bu ñuy jub si élection yi koñ boo tourné di nga fa gis permanence bu bees. ñu luyee def benn panneau commencé teg fa benn secrétaire dóor benn imprimante le temps élection yi di passé bu ñu passé pare nañ ñu c'est des policiers xam ne ils prennent les mhm. Sénégalais vraiment ils les prennent pas au sérieux am ci nag ay parti yoo xam ne sincèrement xam nañ lu tax ñuy dem élection. te am nañ am nañ ay objectif am nañ ay objectifs. Et c'est ça qu'il faut retenir. Moi, je pense que dans ce débat euh, public-là, ce qu'il faut retenir, moi, les gens, lu ñuy proposé au Sénégalais. lan la ñu bëgg ci assemblée par exemple man tey un un Djibi Diop bu ne ma bugguma assemblée mu am majorité absolue du pouvoir je suis pas d'accord il peut donner ses arguments xam nga te mun na wax na ko léegi du point de vue de la démocratie ça peut poser problème ah, wax na ko ça je suis d'accord tey Pastef bu ne ma majorité laa bëgg te ci li mu sukkandiku ne majorité laa bëgg dama ko koy accepter parce que ni ma gisee jeu politique bi di doxee nii su Pastef amul majorité le projet est foutu le projet est foutu te li moo ko wone mooy li xew assemblée nationale. Mm-hmm. yow fan nga teg sur la base d'une lettre informelle informel ki ne pas officielle bu Ousmane Sonko bind ak Guy Marius Sagna ñu ne débat de politique débat d'orientation doo am budgétaire doo am loolu foo ko foofal ban dëkk bu sérieux nga gis ñu ne Ousmane Sonko nawloowuñu parce que ci lettre alors que lettre boobu ci Facebook lañ ko bindantee non yaa kekk lan moo ci am lu officiel ay député basé wu ci pour refuser catégoriquement ne du ñu def débat d'orientation budgétaire ku xam débat d'orientation budgétaire importance bi mu am ci agenda assemblée. Mm-hmm. ñu basé ci loolu dem alors ñu ñëw ci bi ñuy dugal projet de loi dissolution as kii bi. mais yow ñu ngi wax rejeté nga le projet. Mm-hmm. mais yemoo foofu de. nga ne de demain on va déposer une motion de censure pour dissoudre le gouvernement <laughs> ça veut dire que tu as quoi comme objectif paralyser ce pays man député boobu soxlawuma ko assemblée nationale man nee naa leen ki majorité wala ki ki ki ki amul ma man c'est pas ça qui m'intéresse man xam la moom ma intéressé mm. quel type de député on aura à l'assemblée nationale man loolu moom ma intéressé parce que gis nga bés bu ñu amee le profil de député yi nga xam ne man bëgg naa ko assemblée di nga fa ñëw gis débat doo xam kii ban parti la bokk doo xam kii ban parti la bokk te ça c'est ça qu'on te sa c'est ça qu'on attend de nos députés mm-hmm. que yow boo xasee ba dugg assemblée simil sa mbubu parti nga teg fële mais tu penses plus au peuple te au cours de ces dernières années tous les schémas ont été utilisés à l'Assemblée nationale tous les schémas mu ngi wax équilibre waxoon naa ko sànq nee naa ko législative bi ñu génn nii y avait à amoon na benn benn vent d'équilibre mais ça sa a tourné à la catastrophe la am Assemblée nationale dem nañ fi am parti bon am nañ am am am majorité pratiquement majorité absolue à l'Assemblée nationale je pense que premier mandat yi Macky Sall mais mais c'était la catastrophe mm-hmm. c'était la catastrophe Mhm. donc ñun amuñu problème ndax pouvoir bi moo fa war a ëpp le député wala ndax opposition bi dafa war a yem ak pouvoir bi ñun suñu problème fondamental mhm. mooy les gens qui von aller à l'Assemblée nationale ces gens la lan moo leen fa yóbbu bu ñuy dem ban set lan moo leen yóbbu assemblée. Mhm. te wax dëgg fa yàlla nag jibi une fois encore tu ma traité traiter d'être pro-pouvoir mm -hmm. mais quand j'ai parcouru le profil man nag gisaguma seen profil wax dëgg fa yàlla pour en parler mm -hmm. mais quand j'ai parcouru le profil de la liste de Pastef ma gis fa des jeunes ma gis fa des des des des des des des gens à mobilité réduite muy handicapés yi mm-hmm. gis ci ah ay ay ay ay magu Pastef ay ay ay ay paa yoo xam ne fi ñu toll ci seen àdduna je pense que lépp lu ñuy teg. comme acte. yàlla lañ ciy gën a xool ni mbiru àdduna. waaw c'est vrai. sincèrement. d'accord bu ma xooloon nag seen liste. <laughs> xool profil yi. grâce à monsieur je peux en parler mais il nous donne une information quand même parce que tout le monde se demandait. wala saar fu mu nekk fu mu nekk fu mu nekk ah voilà voilà. Ah, <laughs> on essaie vraiment continuer voilà ak euh, situation.